Ngoné Gueye ak aram bii bi jur Modou Kara ñoo bokk léegi baay Ngoné Gueye moo yar Modou Kara rakkam bi ñuy wax maam sanu kera ba sëñ Modou Kara ñuy gañee jamono dafa aram bii jël ndeele ko rakkam jooju ñoom ñii comme ci jàkka ji la ñu nekk ma bañ koo guddal Serigne Malick Gueye ngi nii moom Serigne Mor Kañ Bokom ñu doon benn Serigne Touba Jambi Noor ñi si des nag bu ñu demee ba ci kër ga ñu gën a leeral kii mooy bàyyi karaam moom bàyyi ñoo bokk ndey bàyyi ñoom ñaar ñii ñoo ànd ñoo jur Modou Kara nag ñoo bàyyi Modou Kara nag nii ñuy ñaanal soxna jur rek la ci àll bi yàlla nijaay bi bokk jaayam ndey bàyyi kan la ci ñuy kan ci ndey waaw nag nee na ñëw fii suñu koor ne waaye ñëw waaw rek imaam Thierno su ñuy wax Serigne Cheikh Mbacke moom suñu Modou Kara la ñëw yow ci suñu bopp laa nga war a ñëw ñëw fii ñoom ñoo jógee ñoom ñëpp ñëw ci Fatick Mbaye Fatick Ndiaye gan daawul Ndiaye ah Ndiaye Mbaye waaw mooy papa ji quoi Fatou Fatou daawul Ndiaye Mbaye things back your way. I'll be honest tonight, tomorrow tomorrow be fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things right.